ñaata lañ dugal par exemple ci wax naan jaar ñaata lañ dugal ci kii. comprendre ma de comprendre ma dama ni. waaw man priorité laa wax dama ni. priorité da nga ne effet d' annonce la. Euh, non des effet d' annonce lay nekk effet d' annonce à exploitation politique. mais pour man politicien la il faut mu. non mu sànni il faut sortir la politique de de de lu am actuellement pour man. waaw xam nga lu nguur bu ñëwee. mais dafa am ci lu muy départ wala day am ci fu muy teg tànkam mais boo dee fa muy teg tànkam. ab ndëgg sërëx la wala ban la bu ko nar a tarxisloo mais dañ na xool fu muy teg tànkam ba noppi. naa ci. man ci la ma jàpp. tànkam da ko war a teg pour mën a dem parce que am na suuf suñ fi teg. Mhm. suuf soosu lay teg tànkam ndax am na ku fi bàyyi suuf soosu suuf si ndax ban la ndax suuf si kekk la wala suuf su dëgër la boo xam ne moom bu ci tegee tànkam day barastiku day daanu mooy man jàpp naa ni dinga ci base ba ngay déparé mooy. on a mis tant de milliards sur un projet ou sur euh, mbirum euh, assainissement ak defaraat yu mel noonu dinaa xool en même temps du ma tere continuer sama liggéey ca la ma jàpp. d'accord sax waa évaluation. évaluation évaluation. waaw mooy gën a adapté wu sax que. audit audit. benn la rek ci ci non non bokkul. bokkul tër bi yëpp benn non non bokkul de déedéet audit ak évaluation bokkul. waa audit. audit moo a wóor waaw mais dama ni évaluation. ci ci contexte bi nii ci cas bi nii. Uh-huh. évaluation moo gën parce que boo defee évaluation poste boo defee évaluation post di nga xam projet bi objectif yi mu amoon est-ce que atteindre na ko ñaata ressource lañ ci dugal ak quel impact la am sur les populations boo defee évaluation ba pare di nga xam fooy déparé nga xam lan moo des parce que toujours là y a le reste à faire le boobu nga budgétiser ko nga xool nan ngay def pour régler problème parce que xamul tax ma xolo loolu mbir mi dafa urgent te audit mënoo ko def en deux semaines trois. boo commencé contre dañu wax. non moo tax man la il faut les actions prioritaires. na nga ko développer rapidement. non je suis d' accord je suis d' accord si mais actions prioritaires yi commencé. audit bi mën nga ko continuer évaluation bi aussi mën nga ko def. moom laa wax ne ni. waaw audit à la coulière faaw mu parce que mais 717 milliards. je suis d' accord 717 milliards. c' est 1000 milliards. face fois c' est 1000 millions. fois 700 717. fois waaw. mu jox la euh, million. mu jox la milliards yooyu 717 milliards. Mm-hmm. nga jël ko ne non bon aywa grave nañu évaluer nañu continuer. non pour man il faut parce que balaa ngay continuer mooy nee nañ wax naan ni saat amatu ci 717 milliards yooyu damay joxe exemple rek. ñu ne euh, euh, waax na Nimzaat dugal nañ fa nangami milliards parce euh, que inondation waratu fa am waxuma ay nit ñu ñëw jël seen pneu sotti ci wala seen i mbalit sotti ko ci benn canal de parce que loolu euh, opération préhivernale yi rapidement ñu dindi ko man waxuma loolu mais nee nañu dugal nañu 10 milliards ci bërëb sàngam inondation dootu fa amati ma ñëw fekk bërëb boobu chaque jour muy am inondation ba ñu waxee ni dugal nañ ci milliards yooyu ba pare aduma ah, ne waaye milliards yooyu fan ngeen ko dugal. ci lan la dugg. mais c'est normalement am audit boobu nag il n'empêche que du ma tere man la ma war a def ba jël ay mesures nañ ko liggéey. mais nañ ko liggéey mooy lan tey waxuma opération préhivernale rek di dindi li nekk ci kano yeeg yu mel noonu mais sànq am na loo wax loo xam ne man fi ma ci d'accordul mooy sénégalais askan ci boppam nit moom mooy jóge point A dem point B pour dëkk fa gis nga sàncaan yi ngay wax wala fàkk dëkk nuñ koy woowee c'est Touba mais nit dina ñëw fekk fu dara nekkul mu ne xaaral ma dem fa def fa dara Euh, Mermoz technique maa ngi koy joxe exemple dem am na ay jamono peut-être romboon nga fa mais ay teel teel nga fa doon dégg. non Mermoz pyrotechnique ci ay jamono laa wax. Hmm. lan lañ fa doon def dañ doon ay exploser ay mbir. Uh-huh. ñu dëkkoon ay booru liberté ak yooyu daan ko dégg. c'était kër góor gi bii nii bii nii c'était kër góor gi mais dañ fa daan romb di witt ay ñambi sukkar ak kii mboq. tool la woon. mais defar nañ ba ni ay nit dëkk fa ne cité kër góor gi tey xoolal seen assainissement ça pose problème. doxul. rond point ba boo ñëwee lépp xar la lépp lépp lépp a yàqu. Birame Almadi bu taw amee foofu moom kenn du fa romb. Birame Almadi te pourtant dëkk bu bees la. Almadi amul amul feneen ak feneen mais donc c'est tout à fait normal nit di jóge ci benn point A dem ci beneen point B léegi xam nga lan la état war a def kii fa mu jëm. wala fa mu ne. Mhm. waxuma naa ko fa jëlee de mais naa ko defaral jumtuwaay yoo xamee ni. mën na fa toog man pour man état la muy responsabilité mooy c'est pas parce que dama war a tas wala euh, euh, yàq dëkk bi jële leen fa ñoom ñëpp mais comme toxu nañu ba ñëw foofu donte fàq dëkk la nu ñu ko mën a waxee wala ay sancaan comme ni ñu ko mën a waxee mais dañ leen defal ay jumtuwaay yoo xamee ni bu dee dañ leen naan taxu leen ne cinq minutes ñu defaral leen canalisation bu bees ñu def canalisation bu bees te yaa ngi wax canalisation mais fii ñu nekk ni euh, euh, collecteur Hann Fann mais nu on est assis sur une bombe te loolu yàgg nañ ci def ay reportage ndax lan eaux usées yi fa muy jaar ak la muy indi ci wàllu posan te pourtant ay dëkkuwaay ngi fi xoolal ay ñaari tali nii ak yeneen ak yeneen mais état moo am responsabilité wu fu nit ñi dëkk ba noppi bari fa mën mën a def le maximum pour indi leen jumtuwaay yu minimum yi nga xamee ne moom mooy tax ba seen dëkkuwaay mën a tane ci ñoom parce que à la colléale moom dina am ku nekk kuy jóge fii ne xarit di bouger ne ay picc di jógee États-Unis di ñëw Sénégal noonu la nit di jógee ci benn point A di dem ci beneen point B comme urgence nag am na mooy lan nañ fexe defar li nga xamee ni nawet baa ngi jëm si te surtout météo lan la wax nee na ren li ñu li ñu nar a taw. moo ëpp lu mës a lu ñu mës a taw fii mën nañ di ay inondation on l'a vu dans d'autres pays où il eu peut-être des déluges yoo xam ne kenn xalaatu woon ni dina fa mën a àgg c'est ça que les que que l'État doit anticiper mais je pense que ñu ñu ko dénk tey ku mu dénk orange mais mooy liggéeyam xam na si dara docteur Sadien mais kenn du ku ñëw ne ko man lii laa xalaat xam na lu mu xalaat xam na lu mu am am na xam-xam bi je ne pense pas que mu doon problème pour moom pour mën a doxal ci lu jëm ci wàllu boobu euh, que l'État joue son rôle mais nañ ko jàppale également dans les comportements mais loolu pour nga soppi ko dina jafe am na ñoo xam ne noonu lañ juddoo bu dee ñàkk comportement bu baax am na ñoo xam ne noonu lañ juddo noonu lañ yaroo ba fii ñu toll mënoo ko dindi ci ñoom da ngay bëgg traverser tali passerelle nekk nii à deux mètres de toi nga romb passerelle bi jaar ci suufu